بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi sant sunu boroom bi mu ñu defalaate tawfiq ba ñu dellu siwaat ci roon keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woowale góor ak woowale jigéen nga xam ne bëgg a nekk taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du moo taxoon ñu nekk ko waaye sunu boroom ni mu tànnee ay nit def leen ay yonentam noonu la tànnee ay nit def leen ay xawaari yuun ñu ànd ak isa ibnu maryam comme ni ngeen ko gisee sunu jeexintal tafsiru suuratu saffi waaye noonu la sunu borom jëlee ay nit def leen ñu nekk saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yooyu mbokk yi am nañ ci ay ngëneel yoo xam ni keneen dootu leen ci dabati ba yowmal qiyaam am nañ ci ay may sunu borom ak mbaax loo xam ni keneen dootu leen ci dabati ba yowmal qiyaam saxaaba yooyu war nañ leen a xam war nañoo jàng seen dund war nañ leen a roy te xam ni inna fi qasasihim la ibra ñooñu day yàlla moo leen gënaloon luñ mën a am ci kaw suuf ñooñu de ay nit lañ woon ñoo xam ni borom bi daf leen a defaloon tawfiq dégg digal ak nangooto ci ay fan rek yu néew ci ay bis rek yu néew ñu gis benn waay bu ñëw ci ñoom ni leen moom yàlla moo ko yónni ñoom fekkewuñ fa ko suñ borom yónnee ñoom xamuñ fu ko suñ borom yónnee wóoru leen ndax li muy wax lu am la wala amut waaye daal dinañu gëm xam ni li mu wax lu am la ñu daal di koy topp mu ni andi leen seen alal yi ñu nangu ko koo jox te xam ngeen ni mbokk yi dëgg dëgg ku wax te yàlla tax di nga xam ne loolu yombut andi leen seen bakkan yi ñu nangu ko koo jox andi leen seen am-am yi ñu nangu ko koo jox ku am ñaar na seen doog mbokkam julitam tey tey dañoo ami gan muy ba mu haajiru ne ñëwee gaa yi xaaj seen alal yi faseel sa jabar ji ndaxte dafa gëmut yàlla bi yéefar la nga nangu koo fase tasal sa sëy bi ak loo bëgg-bëgg sa jabar ji lu tax parce que ñaar ñu bokk nàmp duñ ànd ci benn sëy mu fase jabaram ji sa alal ji sànni ko parce que ci riba la jógee mu tuur lépp fekk gurtuy sàngara la woon maanaam dégg ndigal dégg ndigal goo xam ni jàpp naa ni mbokk yi ku xool saxaaba ya nañ meloo ci dégg ndigal ak nangoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fan ca yeggoon kenn du leen ca dab moo tax liñ amoon kenn du ko am mooy radiyallahu anhum wa radu an yàlla mu ni yéen moom sayaboo seen xel na dal ndax yàlla kontaan na ci yéen kon nag sayaboo ngeen daal di kontaan ci seen borom yéen it loolu nag mbokk yi martaba ju rëy la martaba ju kawe la xam naa day mënuñoo góorgóorlu ba nekk saxaaba ya waaye mel ni saxaaba ya waaye nasalullah an yaxsurana yowma alqiyamati fi zumrati saxaaba loolu lu mën a nekk la mooy sunu borom bu ñuy dekkal mu dekkal nu ca mbooloom saxaaba ya ñu bokk nekk ci ron keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yomb la sunu borom dellu siwaat nañ tey ngir dundalaat xol yi ci waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni góor yooyu ak jigéen yooyu ay nit lañ woon yoo xam ne dañoo pare woon ci lépp comme ni ma ko junjee sànq ngir am ngërëmal seen borom subhanahu wa taala góor yooyu ak jigéen yooyu yàlla dafa defoon lépp lu leen ngërëmal yàlla laaj dañ ko koy jox góor yooyu ak jigéen yooyu borom bi subhanahu wa taala daf leen a jaraloon seen lépp moo tax jàpp naa ne kuy waxtaanee seen dund la waaje mbagum salaf ma doon wax xaddis naa ani salafi li kay naftadix boo bëggee suñ sutura xaawee ko rek mu ni waxtaanee dund salaf wax na dëgg ku am yëg-yëg dëgg buñ lay waxal dund saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain gàcc da lay dab yàlla xam ne ni man léeg-léeg dama koy xool ci suma bopp léeg-léeg ma sangu génn di melenoo ko yu kenn xamut damay mujj yëg ci sama bopp ak ñàkk fayda goo xam da ngay mel ni suma waay jigéen ji préparé jëm ngénte lu ra- lu waral loolu xoolal saxaaba yi nañ meloon nga xam ni daanaka peñewu chaque jour sax tañu taluñu ko woon yàlla xam na xam ngeen am na xadis yi ñëw di wax ndax peñewu chaque jour ngay peñew wala boog peñewu nit ki war warta def lépp benn yoon par bis gis nga yooyu ay wax la yoo xam ne ni nga koy déggee mooy ñoom ci seen jëmmi bopp amuñu woon googa jot moo tax damay jàpp ni ku am yëg-yëg dëgg la li ngay def daganta yaa ngi melal li ngay def dara néewu ci waaye bu dee am nga yëg-yëg yàlla xam na ni bu boobaa da ngay jéppi sa bopp ndax yaa ngi niroog jigéen ju jëm aw xew ndax ñoom góor yooyu taluñu woon loolu ak jigéen yooya waaye lañ taloon mooy nu ñu jot leen jubal suñu borom li bu leen laal yi seen alal yi ak bu leen laal yi seen bakkan yi tey ñoo ngi keneen ci mbooloo mooma di benn waay bu ñuy wax abdullahi zulbijadin wala zulbijadayn abdullahi zulbijadin wala abdullahi zulbijadayn abdullahi ibni abdillahi ibni mun ibni almunhim ibni almunhim wala munaim sorewul noonu la noonu moo nekkoon turam dëgg waaye zulbijaadayn dafa am lu ko waral yonent bi tuddee ko ko sallallahu alayhi wa sallam abdullahi ibni abdillah ibni almunhim kii mooy abdullahi moomu ñi tuddee zulbijadayn abdullahi zulbijadayn abdullahi borom ñaari yërey diril yi abdullahi zulbijadayn mooy abdullahi borom ñaari yërey diril yi benn bis moom la yonent bi ni woon yow yàlla seedeel ni kii tëdd nii tey gërëm naa ko dama gont kontaan ci moom kon yàlla kontaanal ci moom allahu akbar mbokk yi shahadaat yi waxuma sax yow nga am ko déedéet waaye nga dégg ñu koy nettalil ab saxaaba rek dafay yokk sa békk day yokk sa kontaante yow yàlla néew bii tëdd tey ci ngoon man yonent bi gërëm naa ko kon yàlla damaa bëgg nga gërëmal ma ko allahu akbar loolu mbokk yi lu rëy rëy rëy la nii la dund yu meloon nag dafa jaadu ci képp ku gëm yàlla mu gëm ni ginnaaw bu ko sunu borom wanee diine wan ko sunna te fekk loolooy dëgg mu xam ni àddina li fi nekk lépp day jeex am ngërëmal yàlla wala am ngërëmal yonent bi rek moo ko jar gis ngeen ko ci suratul hadid i'lamu annama alxayatu dunya laibun wa lahwun wa zina xam leen ni dunduk àddina gi am polaak fuukeek caaxaan ak i taar taar ak i ëppalante ak yëkkati konte bari alal bari ay doom mi ngi mel ni taw bu wàcc bi mu wàccee mu saxal gàncax bañ paree ca gàncax ga gàncax gën a tax naat ba mu paree mu lax gooy jaune nawet ba jeex ëllëg yowmal qiyaam nag sunu borom ni xisaab bu taraga la fay xaar gis nga bu nawet bi jeexee te fekk bayoo woon lu ko jar bu xiif bi dikkee ba noor bi wow koŋ ci ngay xam ni mbay bay ca nawet ba jaroon na ko jamono ba nit ñay bay nag ku ne di maye ku ne di ñoral doo xam ni yëf yi am na njariñ waaye saa bu ñu demee ba tollu ca digg noor ba nit ñi dajji seen sàq yi pour génn la ñu dencoon keroog ngay xam ne wa fil axirati adabun shadid adabun shadid mooy daa ngaa bayut woon wa maghfiratun min allahi wa ridwan mooy bayoon nga duy sam sàq bam fees niki noonu jullit bi dafa war a yëg ni ngërëmal sunu borom lépp loo weccex ne loo joxe pour am ko rek su boobaa jar na ko benn waaye ngi bu ñuy wax abdullahi dhul bijadin abdullahi dhul bijadin baayam dafa teeloon na faatu abdullahi dhul bijadin baayam dafa teeloon a faatu rakki baayam jël ko yar ko bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abdullahi zulbijaadin lislaam tàbbi ci xolam waaye ñemewu koo feeñal ñimewu ko wax da ko doon nëbb kon nag yëg leen ni loolu yàgg na fi nit ki nekk ci situation boo xam ni ñimewu la feeñal lislaamam su dee ci sunna la ñu ni moom gëm na sunna xam ngeen loolu tey dal nañu bari li may wax nii aka dal ñu bari am na fi mu nekk nii ñoo xam ni sunna sii nga gëm yàlla xam ne ni gënoo leen koo gëm waaye problème bi mooy fañ nekk dañ fa tëju ci roq lañ ne dañoo mënta génn roq ba xaw ma li may wax ndax leer na wala déet am na ñoo xam ni ñoo la gën a xam ni li ngay toppay dëgg gis nga fi mu ne bu ngeen wéetoon ci ruq ruq sum ñemee waxee ci ngay dégg baati pas-pas yoo xam ne da ngay foog ni waa ji fasut lii moo tax gis nga gis nit rek juge ko wóorut jugement mbiru suñ borooma atte nit ñee classé kii moo baax kii baaxut kii mooy tàbbi àjjana man li gën a yéeme sax mooy mbirum tàbbi àjjana mbirum tàbbi sawara gis nga yooyu moom bàyyi leen kook suñ borom yàlla xam ne ne léeg-léeg nga gis nit muy xaabar xaabar yi dem ak ak ak ñëw ak mbubam fam fare tax nga di ko am yoo koy taxé bu ngeen waxtaanoon ba mu yulli la nekk ci biiram ci wàllu pas-pas ci ngay xam ni kii moo la gën a gëm li nga gëm waaye dafa am lu ko tànc mënagul a génn loolu da daan dal ñu bari dëgg la loolu du lay nag utal bunt pour génn waaye nag jàppal ni am na ñu muy dal nag saxaaba ya ñu bare bare bare bare bare lislaam tàbbi na seen biir xol ñi di ko nëbbu seeni jëkkër ba buntu amee ca lañ ni poccet daw saxaaba yu bare bare bare lislaam tàbbi na seen biir xol te ñemewuñ koo feeñal bañ amee buntu lañ ni pëccët daw yéen a ngi fàttali ko dars biñ fi mujjee def xayaat saxaaba waaja génnoon dem ca àll ba campé fa ba gars yi di ko fekk si ku may fàttali turam di dogaale Quraysh nag seen caravane yi ba yéefar yi yabal yonent bi sallam ni ko sa waaj yi teen koo jël nga dimbale ñu bokk ñun sonn nañ fi mu ne la hawla wala quwwata wax naa leen bàyyi leen bopp bi lekk bopp jën baax na continuer leen rek da leen lekk bopp jën rek dara du ngeen ko xam dara bàyyi leen lekk bopp jën bopp jën day tax nga naqari xel ah abu busayr abu busayr ak abu jandal abu busayr rek jiitu abu jandal topp ko ak gaa yi gis nga ñooñu keroog bañ wootee ñu bari bari bari dañ doon nëbbatu keroog lañ fàq daw fekki ko kon yow loolu yàgg naa am tey jii mi ngi am ba tey am na ñoo xam ne li nga gëm tey loolu lañ gëm waaye ñemewu ñoo feeñal seen pas-pas ba léegi parce que dafa am lu leen tënk abdullahi dul bijaadayn baayam dafa faatu baayam nekkoon ndeysaan ko tumuranke amul dara baayam bàyyilu ko dara te xam ngeen loolu métti na trop bari waa na ñoo xamante ni tey taxaw nañ seen baay daf leen a bàyyee alal wala seen baay faatu jox leen alal waaye abdullahi dul bijaadayn baayam amul woon ci tumuranke la faatu ndeysaan bi mu faatoo bàyyilu ko dara rakki baayam jël ko yar ko rakki baayam dal di koy yoral léppam fekk jamono jooju lislaam tàbbi na ci xol bi waaye nag benn du mag mooma ñimewu la fépp te it baayam moo ko yoral léppam lekkam naanam yéreem yépp mu toog di ko muñ di ko muutuwaale waaye nag gis nga affaire yi léeg-léeg am na yoo xamante ni boo koy muutuwaale bu yàggee buy buy toj rek doo ko doo ko yëg imaan a mel noonu maanaam gis nga imaan bu nekkee ci xol bi di togg di togg buy exploser yow doo ko tey moo tax gis nga imaan lu mu mënta def loo nit amul la Xaalid ibnul Walid doon wax naan yéen yéefar yi sama lettre bi bu yegsee ci yéen yëg leen ni di ngeen fe yéen a ngi ci biir tata bi mu ni di ngeen taw fekk si ñu wala ñun ñu naaw fekk si leen bi mu sànnee lettre bi ki njëkk a for lettre bi bi mu bi mu liiree lettre bi daa tiit ba tijji bunt bi te xamul lu ko tax a tijji bunt bi di ngeen taw fekk si ñu wala ñu naaw fekk si leen xoolal loolu te juróom benn weer ñi ngi toog di leen wër amuñu fuñ jaar waaye xoolal imaan lu mu mënta def loo nit amul parce que léeg-léeg doomu aadama buy dem fekk yëg-yëgam lay demee zul bi jaadayin bi mu toogee ab diir gisul ni baayam daal jéem na dara mu daal di xëy xëy benn bis ni ko bàyyi dama bëgg ñu waxtaan mu ne ko lu xew mu ne ko bàyyi boobu ba léegi maa ngi toog di muutuwaale lislaam ndax foogoon ni yow mii ko amum xel nga digga dugg ci lislaam te duggoo man nag bis ni ko te dama lay wax ni mbiri dama ci dugg ba mu nekkee ci man nag yàgg na dama la ko doon nëbbu parce que damaa bëggoon nga njëkk a tàbbi ma topp sa gannaaw bàyyi ji ni ko ngani mu ne ko muhammad laa wax dama koy topp sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko abdullah xool nga li ngay wax muhammad de boo ko toppee tey nga al ndax xam naa lépp lu ma la mas a jox dinaa ko nangu te lépp loo xamante ni yaa ngi ko yore dinaa ko nangu zul bi jaaday ni ko ndox mu futti mu jël lim amoon lépp futti ko ba sumi tubay ji subhanallahi alazim xoolal mbokk yi loolu moo tax damay wax ne xeer saxaa bokk na ci ni muy dundalee xol léeg-léeg situation yi ngay toll ba yaakaar ni àddina bi suba ci ngoon lay tukki fekk tukkee gudde am na ñoo xam ni àddina doon na waaj a tukki ci seen pegg ñoom moom dëgg dëgg dëgg tukki woon na ci seen pegg bàyyi ji nangu lal ba mu doon tëdd nangu mbàcc ma mu doon sàngoo nangu yére yam ko joxoon ba ñëw ci yére yim sol nangu ko nangu mu ma nangu tubay ja desewul dara mu ni du mu du ŋaaral daanaka terex laay jam jam sàngewoon ay awraam kese la dese mbokk yi xoolal loolu ni metti kan ci ñun moo àgg foofu kan ci ñun ñun fi ngay toll mooy place bi mënatoo fee liggéey parce que daal sa yi ngay jaay moom sa xabdu yi sa julli yi ngay julli du fi ma mënatu ñu da ñu dàq la nga dem wuti feneen loolu du dara sa kër baay sa baay mun la génnal kër gi mel ni yeneen kër dafay amul teg mosu leen a gis ku génn kër baayam di fanaan ci mbedd mi ku génn am ku la fa fi mu ne nii yow loolu du dara loolu du dara du da gis nga gis nga soo déggee ma ne du dara dëgg la nit ki du nekk ci ay problème nga ne ko nekkoo ci problème waaye boo ko bëggee defal dafa bokk ci stratégie daawa mooy nit ki problème yi mu am da nga koy nettali yu ko gën a rëy moo tax xeet saxaaba loolu moo tax mu am solo xoolal zul bi jaaday yow amoo dara àllub neen kon est ce que doon na xalaat daan man kii moo may dimbali kii moo may yoral nangam ñaata ci ñun la leen seen diina jaral ñuy wàcc seen diine seen seen seen àddina jaral ñu wàcc seen pas-pas e ñun kat sunu tëni bi moom kenn du ko cëkkal kenn du ko cëkkal kat tëni bi kay moom ni ngi koy bàyyi nii boo ko nangee dag nga bàyyi liggéey bi loolu kese yàlla xam ne ni nga daal di buubal ngir salaire bi nga nar a am te waxuma la bàkkaaree ci nekk yonent bi dani sallallahu alayhi wa sallam laa yanduru llahu ila salaati lmusbili idaara ki buubal ay yëreem mu ni yàlla du xool ak julleem xool laa wax yàlla bu la xoolu du la yërëm xool lii waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de laa yanduru llahu ila salaati lmusbili idaara ki bàyyi ay yëreem muy direeku na yëg ni yàlla du xool ay jullee ak julleem du ko xool waxuñu ay mbirum nangoog du nangu du ko xool la wax ana benn seen affaire terroriste yi ngeen di bàyyi lii kat moom mënut a ndeysaan suñu benn xarit mas naa ko fi tudd ci benn darsi yàlla na yàlla sàmm ko chauffeur la dafa ñëw yéeg ci moto bi defar def seen entretien yooyu gars yi ni ko sikkim bi mu ne mu ne ko ba ma ko waxati sama sikkim bi c'est la dernière fois nga di ko tuddati soo mënee jël nga jël ma soo mëntu jël nga bàyyi loolu moo tax mu wàcc delloo leen seen caabi dem yoonam man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran min gis nga yu bare bare bari intérêt àddina mooy teew rek ngis ndeysaan solal nañ la kos jox lay dàll yu ñu silence ba mu ñuul kuk ah kos bu noir karawaat bu weex léegi nag il faut ngay jox loxo jigéen ñi parce que fi mu ne nii moom affaire yi moom fa ngay joxe loxo kat loolu moom gis nga nga daal di commencé nangoo jox loxo parce que dañ laa fan DG directeur général te directeur général fi ne moom la ñëpp doon wër fi mu nekk nii te xam nga ni boo fi boo boo ñu boo léegi maanaam dombay tànk yii mooy waral fi ne nga gis koo xam ne sax day jaay yabiu diinahu bi aradin qalilin min ad-dunya déedéet sama diine ak sama pas-pas lu ma laaj nag daf lay jaral nga bañ ma ne jabari njiitam réew mi sax bu ñëwoon di la jox loxo nekk inni la usafihu nisa parce que yent bi loolu la waxoon man du ma jox loxo jigéen waaw maa la ko wax jël sa loxo bi teg ko sa bopp bi ñu daaj pont ba mu àgg ci sa yuqu ga moo gën a sedd fa yàlla nga jox loxo jigéenu jàmbur loolu la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam zul bi jaa day bàyyi ji daal di ñëw nangu lim ko joxoon lépp ba nanguwaale yére yam solo ndeysaan bi mu ko nangoo nag mu ni ko wallahi inni muttabiun muhammada wa taarikun ibadat alxajar bis ni ki tey damay topp muhammad ay xërëm jaamu xërëm ak li nga xamante ni mooy ay xeer ci boppam laa bëgg a bàyyi man abdullahi dul bijaaday bi loolu amee ndeysaan mu daal di waaxu ñëw ci yaayam mi ngi ni dung dungaaral terax laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk yëgagu ko yaay ji daal di koy jox ñaari séri diril loolu sama classe gi ban nan kaa bañ a xam ci mag yu njëkk ya yu yàgg ya fii Sénégal avant cinquante ak yu demee noonu léeg-léeg nga waxtaan ak am mag mu nettali la jamono jooju jamonoy bekkoor la woon defe naa mas naa ko fee nettali ci benn dars ba am na ci koo xam ne nee na ma yére yim ko yañ ko doon andil ca daara ja sëriñ baa ko doon sol defe naa bañ may wax loolu kii fekkee na ko am na ku ma nettali nee na ma ñun ñii sama bàyyi ko amoon alal la mu ne yére yiñ ma doon andil xoolal yërim ndoo nga daara mu ni sëñ bee ko doon jël di ko sol kii fekk moom fekkee na ba ñu may wax loola xoolal jamono jooju ni mu mettee woon gis nga de nga xam ne da ngay gis koo xamante ni su mu way mbub mu baax mi benn kenn ko fi am ci dëkk muy borom dëkk bi mbaa imam bi mbub mu baax ay ngémboog ay woddoog ay teraxlaayoog ay tafat taf ay tafat lu ne ngay dégg ah gis nga de jamono jooja moo nekkoon jamonoy mooy ji ma leen fi waxoon ci jamonoy caayaneel ceek loolu soo déggee wolof yi di wax loolu jamono jooju la woon ah booba ak jamono ja ko jege nga xamante ni daanaka booba capital bi nekk gut ndakaaru capital baa nga ndar da ngay gis ku jékki-jékki caaya ji ni tareet mu daal di koy dab daaxiwaat caayaneel ceek su ma demee ndar xotti jeneen tubay sànni la ca ñag ba maanaam fi mu nekk nii sa tereet tereet ji taxul ma mën laa sànni moom kay faw ma liggéey li may liggéey ba delluwaat ndar ca capital ba mën a changé jeneen tubay xam nga ni métti woon na de sama classe bi nga xam ne kuy génn fii pont daal lay lonk sax nga mayee sa mbubb moom doo ko soxlaati gis nga ni mu amee sér bu ñuy tuddee séru rabalu aaw mooy sér yooyu nga xamante sér bu diis lay doon ni mu amee yeneen xeeti yëre yu ñagas ay ñagg ak xeeti yëre yu yàgg yooya noonu la amee woon benn yére yoo xam ni ci ay saako la daan nekk ay saako saako yu rafet yu doon def sunguf suñuy tuddee sumbul du noonu la sëriñ bi waa defe naa kii moom a gën a xam loolu sumbul yére yi sunguf si ko doon def saako yi mu doon dem saako yooye lañ doon jël suppi ko ay yére mu nekk yére yu diis gan yoo xam ne macha allah moom koy am caa jafe waaye boo ci amee bu doon jamonoy seet danal doy sëkk moom yaay ji daal di koy xottil ñaar ñaari yére yi ñu tudde yére yi diril muy bijaa dayin benn bi mu daal di koy teraxlaayoo benn bi mu daal di koy ràngaayoo moo tax ñu di ko tuddee dul bijaa dayin bi mu defee loolu nag mu daal di génn dem ba ci pegg jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu guddi amul fu mu fanaan allahu akbar xoolal mbokk yi amul fu mu fanaan xam ngeen fu mu fanaan keroog ci mbedd bi daa dem ba ci diggante ñaari montagne ci wetu jàkka ji rek mu daal di tëdd foofu ndeysaan nelaw ba bi danti amul fu mu jëm yonent bi saa sallam ku amoon yëg-yëg la ku mënoon a jàngale la ku ku ku fonkoon ay taalibeem la yonent bi julli su jullaan fajar léeg day geesu gis ngeen ko imam ni muy def waxtu bu nekk boo jullee geesu xool gaa yi bu xoolee gis ke am ku manqué mu dem seeti ko ñun duñ def loolu nag su ma nee ñun nag imam ñun imam yi la ki wax képp kuy gis ngeen tasam su xoolee ana diw ñu naa diw boo demee fanaanu fi démb de fu mu dem gëléem moo réeroon démb ca ngoon mu topp ci àll bi di ko wër bu dem nemmeeku njabootam gis nga saxaaba yi da ngeen yaakaar dañoo jékki-jékki xëy yeewu benn jour rek bëgg yonent bi yonent bi saa salaam dafa am lu mu def ba saxaaba yi bëgg ko de dafa am lu mu doon def de gis nga yëg-yëg beeg jëflante bu rafet bee maanaam nekkul nit dañoo jékki-jékki yeewu nii rek bëgg yonent bi saa salaam mu jeex déedéet yàlla dañ koo bëgg parce que dañ koo gëm waaye li tax ñu bëgg ko gëm ko parce que bi njàngee alquran ñu gis ni lim ñu defal amul keneen ku ñu ko defal moo tax yemalewuñ ko keneen gis nga yonente bi yërmande ji mu am ci ñun ba ñu xam wa ma arsalnaak illa rahmatan lil alamin bokk na ci li tax saxaaba yi bëgg yonente bi julli ba noppi génn di doxantu noonu di xoolaale kër yeeg xam naa mu dal di seen benn waay bu sàngu bi mu ñëwee tiim ko waaw kii kan la waa ji daa ni ko man la abdullah abdullah am na ñuy wax ni abdullahi ibni abdillahi ibni gunm am na ñuy wax ne abdullahi ibni abdil uzza ñaari riwaay yépp ñëw na mu ni ko man la abdullah yonent bi ni ko déedéet du abdullah zul bija day ni nga borom ñaari diril yi yonent bee ko tuddee maanaam gis nga ku mënoon ku mënoon a ku mënoon attirer nit la xoolal rek situation bi mu ko fekk moom xamagut kii kan la xamagut fu mu fanaan xamagut ndax day tuub waaye gis nga nit ki léeg-léeg nga dajeeg moom pour nga marqué ko gis nga am na cuq yoo koy cuq rek day daal da lay daal di ñeme yow yow kaar mu ni man la Moussa doo ko bàyyi ci Moussa jooju rek waaye nga daal di xool li mu sol daal di ko koy askanalee ah borom ñaari yére yi diri yi daal di ree nag su ko defee waa ji daal di koy ñeme commencé nag di ko rencontrer histoire yi. moo tax gis nga yoonu sasalam ñi mu xëcc ñëpp yàlla xam ne ni boo doon jël tey stratégie yoonu sasalam ci wàllu daawa jamono yi paas def nañ benn muhaadara côté Fatick maa ngi ko doon def ci loolu ad daawatu ila allah wasti'jaalu nataij woote gi ñuy woote ci yàlla ba noppi yàkkamti résultat yàkkamti gi day waral léeg-léeg stratégie fi ñu war a jaar sax duñ fa jaar gis nga yéen sa salam daf doon marqué nit ñi lool léeg-léeg nga ñëw sax mu xam ne yow mii fa nga jógee kilifa nga fa nga ñëw mu jox la cër ba nga xam ne yow mii jox na la ko zul bi jaa dayin borom jaar yére yi déril yow moom looy def fii mu daal di koy nettali histoire bi wax ko ni ko nii la nii la yéen sa salam ni ko jugal ñu ànd mu daal di ànd ak moom yóbbu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu ko yóbboo dalal ko këram toppatoo ko boole ko kenn ci saxaaba yi ndax mbooloo ma loolu rek lañ sawar gan ak yonent bi maa ko yore loolu loolu ak yi bu doon ñu ne fi mu nekk nag hi su waay man benn néeg dong laa man nooy def ak moom waaye saxaaba yi maanaam yonent bi ganam gi man la ko jox démb loolu daanaka moo kayitaat bi àjjana ca kër gu ma gaayam ci ñoom maanaam dabu ngërëmal yàlla ak ab yonenteem jaraloon na leen lu ne xoolal fa leen yàlla àggoon subhanahu wa taala hey yonent bi démb kay ganam gi mu dikkee man la ko jox gis nga loolu ni mu réyee woon moo tax it bu agsee balaa laal balaa koy joxe sax kenn ay njëkkantu ni ko jox ma ko mu ànd ak moom daal di ñëw zul bi jaadayin daal di dugg ci lislaam nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu de xanaa mooy tolloog aay ji suñu borom jox aw man kaana mayitan fa ahyaynaa wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bi fi nnaas kama mathaluhu fi dhulumaati laysa bi xaariji minha ban saar anaam suratul anaam 122 kon ki nga xamante ni dafa faatu te ku faatu mooy ku xamul njub ku xamul lislaam ku xamul sunna kooku comme ku faatu comme néew yàlla mu ne ma dimbali ko ba dundal ko dekkal ko dekkal gi mooy la wan gi la yàlla wan lislaam wan gi mu la wan sunna dekkiwaat bu bees la yàlla mu ne ma roof la ak leer goo xam ni booy dox ci nit ñi ngay dox ndax loolu dana bokk ak waa ji nga xam ma nga cël dem ngay kànni kànni mu ni déedéet gis nga de sunu borom subhanahu wa taala def nag zul bi jaadeen léegi bokk ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu taqoog yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam lool nangoo jàng nangoo jëfe nangoo jàng nangoo jëfe lan moo tax ma ees ci nangoo jàng nangoo jëfe mooy loolu la loolu la da doon nangoo jàng nangoo jëfe gis nga mas naa dégg imam Babacar Sall jazahullahu xayran bu mag mu wax ne nan góorgóorlu ñu nangoo jàng suñ diine mu ne gis nga vingt ans ci ginnaaw ñi nekkoon ay déglukat ba tey ay déglukat lañ vingt ans ci ginnaaw ña nekkoon ay déglukat ba léegi dañuy déglu rek ay déglukat lañ waaye ña nangu woon a jàngi tey ay jàngalekat lañ xaw ma wax ji àgg na message bi jàll naan déet vingt ans ca ginnaaw ñi nga xam ne ay déglukat lañ woon rek mu ni ba tey ay déglukat lañ waaye vingt ans ca ginnaaw ña nangu woon a jàngi tey ay jàngalekat lañ jarul sarxa nag message bi jàll na leer gis nga de zul bi jaay tàmbalee jàng tey jëfe moo tax saxaaba yi ko doon def yépp romb nañ ko dut ñoom de c'est très rare nga gis saxaaba boo xamante ni mbirum jàng ak yooyu daanaka ku mel ni Xaalid ngay jël te xam ngeen ku ne xam ne situation Xaalid benn waaye dafa wax wax ju am solo ndeysaan nee na Xaalid da daan jël téere bi jooy mu ne yaa mushaf shaghalani anka al jihad fi sabilillah wallahi musaf li ma li ma bëgg ci yow aw ma ko parce que jihad fi sabilillah moo ma teree toog di la jàng mu ni ñun nag da ngay gis ku téye mushaf bi ni ko yaa mushaf shaghalani ankal jihaz gis nga gars yi niñ mënee wax xam ngeen luy jihaz déer bii sax daa tuuti i connecté connecté jihaz jihaz mooy jihad fi sabilillah jihaz mooy li appareil appareil téléphone yi nga xam da ngay dugg internet ak ngeen xamu ko Xaalid da doon wax ni shaghalani ankal jihad mushaf dëgg dëgg li ma la war a jàngee jàngee ndax jihad bee dox sama diggante ak yow yow moom nga ne mushaf billaay sama appareil bee tey fi ni mënuma laa jàng ndax temps bi ma am yépp fi laa koy def mi ngi noonu zul bi jaadayin ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng ci moom ba mujj nekk kenn ci ñi nga xamante ni ay jàmbaar la ñu yonent bi tagg sallallahu alayhi wa sallam te xam ngeen ni yonent bi yaakaar naa ni comme ni yaay waaja rek yaay waaja yonent bi dem na ko ba seedal ko mu nekk waajoo xam ne awaab xoolal la yàlla seedalal ni'amal abdu innahu awaab ah yàlla mu ne jàmm bi ka baax waay jàmm bi moo ko baax lu mu def mu ni innahu awwaab moom dafa mën a dellu ci yàlla moom daal ay mbiram yépp da koy delloo ci yàlla subhanahu wa taala benn bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay bu ñuy wax adra nee na dama doon garde yonente bi sallallahu alayhi wa sallam garde nag nekkul yonente bi moo naa yee kaay leen garde ma bàyyi leen xel loolu de yonente bi daawul wax kaay leen garde ma de saxaaba yi ci boppam ñoo nanguwul woon a bàyyi yonente bi muy wéet ñu di ko garde gis na keroog bi mu takkee safiya te xam ngeen ni safiya cosaanal yahud la jóge daa yeewu fekk abu ayub al ansaar yi taxaw ci bunt bi di ko garde mu ni ko looy def fii mu ni ko ki nga takk ci juif yi la jóge te yaakaar ko mën a ay affaire am set na de moo tax ma taxaw fii di xaar lu ma dégg mu yëngatu rek ma yegg si yonente bi ni ko demal kii dara duma ko def mu daal di dem waaye daawul ay naan kaayeen garde ma comme déedéet loolu mu defe naa amar ibn al xataab sax ñoom daawuñ ko def waxuma la ak keneen jamono jaa meloon noonu parce que ku àtte nga maandu foo tëdd nga mën nga faa nelaw nee na dama doon garde yonent bi saa salaam benn guddi nee na yonent bi génn rek ci bunt bi gis ma mu ni kaay gunge ma ku oyofoon la ku ne la doon àndal sama classe gi moom bu ñuy wax kaay gunge moom dañuy seet koo xamante ni xëy na sax moo la sut ak lees nag nga bëgg a ànd ak moom ngir tiitaroo waale ko waaye fekk waa ji waya waya waya waya waya bi ma ba mel ni mën naa ko kaay déedéet waaye yonent saa salaam maanaam ñëpp la bëggoon ku ne yëg ni yow dama la fay nekkal loolu dafa am solo gis nga boo yëlifee ay nit loolu dafa am solo maanaam ñëpp ku nekk yëg wàllam ci yow yonent bi saa salaam mu ni ko kaay gunge ma mu ànd ak moom nee na bi ma àndee ak moom ñuy dem ba mu yàgg ñu romb benn waaye buy julli ci guddi gi fekk guddi la ñu dégg alquran jaa ngi neexal di ko riiti riiti boo xamante ni macha allah yonent bi ne ah kii de boo demee fi ne ñun dong la gis di riiti alquran bi ne fekk yonent bi moo wax loolu nee na ñu daal di continuer ah nee na bi ñu continuer ma ne ko ah yonent bi yow looy wax ni kii mi ngi jàng alquran ji di ko di ko di ko defaat di ko ma ne ko ah gis nga mbir yi kenn du ko amee ci notante maanaam jëfër jëfër taxul nga yegg fa nga jëm mbir yi nànk nànk ngay def rek ba yegg fa nga jëm mu ni ma toogaat beneen yoon may garde yonent bi yonent bi génn daal di ma kaay gunge ma ñu rombaat beneen waaye buy riiti alquran ji di ko neexal léegi nag yonent bi waxul tey moom moo waajee wax waa ji mu ni boo demee kii day day ngistal rek xam nga yent bee moo waxoon waa ji ni kii de boo demee day riiti alxuraan ji ñun ñoo tax tey nag adra moo ni ah kii de boo demee ñun la gis maam la mu waxoon la waxaat rek kii de boo demee ñun la gis moo tax muy muy muy neexal baat yonent bi ni ko déedéet innahu abdullahi dul bijadayn innahu awwaab kii di jàng abdullahi dul bijadayn la te kii ci ñiy dellu ci yàlla tigi ci la bokk unduru ila hadihi shahada mbokk yi shahada gu rëy la jàpp naa ni am na yenn xeeti shahadaat yoo xamante nii bu ko kenn ci ñun amoon wala ñenn ci ñun amoon ñooñu kenn dootul mën a téyeti seen i mbagg ñooñu boo bu amul sens dañuy naaw laa yaakaar parce que yow di dund faatoogoo ki nga xamante nii moom la yàlla yónni te aw yoo xam yépp léppay dëgg mu seedeel la seede yu mel noonu laa chaque ni sa ngëm day gën a yokk léegi nag tey kuy garanti lii amatu fi donte nag gis ngeen ñenn ñu koy garanti li la nga gis kenn koo xam ne day wax njaaxum ji toll ni innama bàjj waaye yooyu nag wóorut loolu mu jarut gëm parce que garanti gi ci yàlla lay bàyyi ko te alxuraan wàccatut ci yonent bi lay bàyyi ko te newati fi léegi nag fi ne nii fii ak àggoo bañ pees say bagage amaaman saqulat mawasinuhu moom xamal ni dara weesagul ci yàqu la loolu moom ñëkk ñëpp xam gis nga fii ak teguñu say bagage ba ni sa waay yow fi mu nekk nii nag moom jàll nga dofis oral sax jàll ko fa wóoru maanaam tabbi àjjana moom jàll oral sax wóoru parce que jàll oral mooy dan dan lay tàppal sa war a xawlaa xawlaa passé foofu tuuti oral loola de maanaam booy oral gii ngeen dégg bu de oral moom bu ko kenn ñaan yàlla tàbbi foofu tàbbi àjjana moom examen yii moom mën ngaa jàllee oral moom du feeñ waaye fee boo fa jaaree oral say nga dee moom kay dofis ngay jaar rek tàbbi àjjana oral mooy da ngay jaar biir sawara ñu riiti la fa tuuti riital la fa ba nga tàng jër ñu doog lay dugal ci dex sang la ba nga set doog lay loolu moom yàlla na yàlla musal ci sax fa gis nga de saa fi ak peese wuñ say jëf ba ni la yàqule nga yëgal ni yàqule weesagul mi ngi mel ni weeru koor rek fii ak dogo dogogoo mën nga fay juubu gis nga kon abdullahi dul bijaadayn jàngkatu alquran la woon zikrkat la woon zikrkat mooy ko xam foo ko fekk mi ngi zikr jàngkatu alquran junj naa ci sànq li ma ci junj gis ngeen tey ñun niñ sàgg ne ci jàng quran ngir ñu ñàkk fayda waaye xoolu zikr ni mu amee solo zikr day dundal xol zikr day dundal xol foo fekk ku la ëpp lu muy zikr du jàpp mer zikr kat dëgg dëgg dëgg du gaaw a mer zikr kat dëgg du jàpp mer zikr kat dëgg du bon xol zikr kat dëgg du soxor zikr kat dëgg du añaan zikr kat du mën a yéene mbokkum jullitam lu bon parce que du am place ci xol bi gis nga yi may wax yépp ay mbir la yoo xam borom xam-xam wax nañ ci ba pare lu ko waral parce que zikr day traité xol bi te xam ngeen yii yépp may wax jikkoy jikkoy xol la ba dindi ko gis na zikr kat jamono bi nit ñi tiit moom du tiit moom la koy tiital leneen la waaye du li tiital nit ñi foo ko fekk day amuk dal da nga yaakaar ni kii sum waay mi ngeeg lu dul jeex fekk déedéet de dafa am dal alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah yàlla mu ni ñu gëm yàlla ñi nga xam ni ñoom foo leen fekk rek ci zikr ci la seen xol yi dalee ala bi zikrillahi tatma innal qulub xoolal zikr ni mu amee solo xoolal ngëneel yu bare bare bare tey mi ngi ñuy romb gënal yu bëree bëree bëri mi ngi ñuy romb xoolal laa xawla wala quwata illa billah dégg nga laa xawla wala quwata illa billah lan nga am ci ay problème taxo sa xol sa xol baat yooyu te problème bu mu tax nga saxoog moom nag ndax ñaan kenn du ko def comme garab xaw ma li ma wax leer na ñaan kenn du ko def comme garab da ngay bàyyi ba feebar ah ñu ni sa waay da ngaa siburu nga doog a dem pharmacie jëndi garab kenn du def ñaan noonu borom xam-xam yi ne nañ ñaan da nga koy jëfandikoo balaa ngay feebar mooy waral bu feebar bi ñëwee mu mën ci dara waaye bis ba bàyyi ba feebar ngay doog a ñaan su mooy affaire dana yéex a wér de mi ngi mel ne nga gaañu ci waaye di xuli ba ngulli ba neewi ba toll ni in ah du sotti de ñaan ak zikr xoolal baat boobu la hawla wala quwwata illa billah xoolal astaghfirullah alazim wa atubu ilayh xoolal subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim baat la yoo xam ne benn bu ci nekk li nga ci mën a màng ci aw yiw yàlla rek ko xam waaye dafa mel ni ñun toog di wax naka su dul noonu waxi kasaaw kasaaw waxi mboosoor waxi tàngalangaay wax yu daanu ci kaw seneen wax yoo xam ne amul benn njariñ dafa mel ni ñun ci lañ gën a sawar ka di zikr waxuñu la foo toll ngay tànkal nit ñi di wax ca kaw waaye zikr mën nga def ndànk kenn du la dégg mën nga def ndànk ngay zikr fekk yaa ngi wax yoo xam ni gis nga képp ku yàlla baaxal ngay góor góorlu di saxoonteeg laa xawla wala quwata illa billah waxuma njàqare du la dal de waaye day néew lum lay dal te wif lay def ci yow dem yoon maa la ko wax laa xawla wala quwata illa billah laa xawla fi dafci charrin wala quwata fi jalbi xayrin illa bika ya rab pexem mën a jañ musiba ba du agsi ci man mbaa kàttan nag mën a xëcc njariñ loolu moom awma ko yow rek yaa ko am moo tax bàyyi naa koog yow aka gaaw ci dindi ay njàqaree ki problème waxuma la nag tiyaaba yan cay am dul bi jaa day jaamukatu yàlla la woon waaye tuddkatu yàlla la woon zikrkat la woon ñépp dañ ko koo xamee am na ñuy wax ni sax da ngay dem ba da nga koy gis li ëpp ci bu daan ñaan ay dafa bari woon lu muy ñaan da ngay dégg sax li muy wax léeg-léeg mu yëkkati kàddoom ca kaw abdullahi dul bi jaa dayin li gënoon a nekk yitteem mooy am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi est ce que loolu mooy nekk suñu yitte ñun est ce que loolu moo nekk suñu yitte kenn ku ci nekk am nga ay tumooxaat xaw ma tumooxaat lu ngeen koy waxee ci wàllu français yoo bëgg a réaliser ay mbir yu nekk ci sa kanam yoo xam ne yaa ngi naan ah lii de moom bëgg naa koo réaliser fii ak nangam lii de bëgg naa koo nangam bëgg naa atteindre yi problème bëgg naa nangam di làkki tubaab di dem rek waaye est ce que dëgg dëgg dëgg dëgg man ngërëmal yàlla moo nekk sama yitte moo nekk suñu yitte mbokk yi nañ xoolal loolu yow lan mooy sa programme di gën a rëy yow tey ku la fëggul tap tap jugal lan nga gën a bëgg yow xam ngeen ba yonent bi ne saxaaba ya sal waxal waxal loo nee naa bu doon ñu ne sum waay tey nga di nga dégg ko tudd R plus 1 kii R plus 2 kii oto 4 4 kii nangam kii waaye mu ne ko murafaqataka fil janna dëkk ak yow biir àjjan mel ni yonent bi kat bi amul xëyra daalik yow amul mu ne ko huwa zaak soxla yépp loolu la tàbbi àjjan xoolal ñoom seen seen pexe si ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam buy ñaan muy dal mu ne waxal loo bëgg ma ñaanal la yow amoo looy wax lu dul dama bëgg a tàmbali yow ajana ko nga xam ne li muy wax de ak xam li muy wax saytu moo xaat saytu moo xaat lan la li nga bëgg li la teree nelaw yow lan la kii jabar ji muy waaj a takk la kee ñaareel bi mu waaj a bu mu bu mu gis la jigéen mu ngi koy bëgg a rey kee su mu waay kër la bëgg kee kenn ku ci nekk lu ñàkk fayda lay wax loo xam ne loolu dafa jëru sax nga di ko def ay tumooxaat parce que loolu ku jéem man ko bu ko yàlla dogalee waaye nag lii nga xamante ni la benn waaye doon wax na ah mbokk yi yii leen yàlla garantil ba noppi de yéen a ngi ciy sonn jaru ko yi la yàlla garantil garantilul sonnoo ci loolu wóoru dégg ngeen wax sa wërsëg yàlla da koo garanti yaa ngi ciy sonn jaru ko sa tamit àjjana yàlla garanti wu gën te sonnoo ci aka wax dëgg kon seen yitte dëgg dëgg dëgg ñoom saxaaba yi mooy am ngërëmal suñu borom yàlla gërëm la subhanahu wa taala da ngay gis ku daw ba fuuti ba furi thabit ibni qays ibni shammaam ah xusaymata ah salmanu alfarisi abu darda abu darrin ah imran ibni xusayn amr ibni alaas abdullah ibni amr koo gis ci saxaaba yi rek nga jàng dundam wallaay da nga yëg ni mbokk yi ñii li li leen yitteelum dëgg dëgg dëgg mooy borom bi gërëm leen subhanahu wa taala léegi loolu lan nga ci war a copier yow mooy sa programme yépp yàlla na la yàlla gërëm ak am solo bisa ngi ñëw boo xamante ni ndeysaan da ngay tudd néew wallahu xalaqtu min daafin da ngaa nekkoon ab liir ñu dem ab yàgg nga nekk ab garant ñu dem ab yàgg nga nekk ab paa ñu dem ab yàgg nga tuddum néew ni laaj tëdd kenn du la wettali wóor la ne tey moom tey moom mbir mu lu lu lu leer ngay wax tey fii moom amul nakk nakkal xoolal ndeysaan te boo seetloo yi ñuy sonn yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp daanaka jaru ko certificat de naissance du noonu lañ koy waxee sa kayitu judd aw kayit la carte d'identité aw kayit la kayitu judd aw kayit la certificat aw kayit la BFEM aw kayit la bac aw kayit la licence aw kayit la doctorat aw kayit la moo tax certificat de décès aw kayit la yépp ay kayit lañ kayit donc ay kayit kese gis nga lii ma lim lépp ba ca certificat de décès ba ñu ne diw dee na ne defal leen ko certificat de décès aw ay kayit rek ay kayit dong la gis nga kayit yii kum tax a sàggan ba kayit wële banque la ci mpax ah jàpp naa di nga sa di nga xam ne mbir mi jaru ko woon de lii lépp ay kayit la loolu lépp ay kayit la gis nga fi mu nekk nii te kat li gën a yéeme mooy kayit yépp ñàkk na valeur tey ba mu des ba mujj bi kayitu judd bi carte d'identité bi certificat bi BFM bi bac bi licence bi doctorat bi maîtrise bi ba lépp ba bi nga nekkee ministre kayit yooyu nga am yépp tey jii benn amatu ci valeur te bu mujj bi am na valeur ndax bu dee kuy fayeeku sa waa kër di fayeeku ci boobu la ñuy jaar ci la ñuy xam bu dee jërëm la ci la ñuy xam ne diw gis certificat dese am na njariñ da nga fiy des moom di moo bi mujj moo ëpp njariñ bi mujj nii fi ne moo ëpp njariñ yee parce que moo fi mujjee ñëw de waaye moo fi des di am njariñ de yooyu mbokk yi foog ñu koy bàyyi xel léeg-léeg yàlla alhaakumu takaasur ëppalante naa am lii dafa dem ba dafa yóbbu suñu fit yi ba xàmmeetuñ affaire yi léegi da ngay gis koo xam day jaawale maanaam ñun ñun suñu problème dañuy jaawale ku dem bay jaawale ab téere akub kaamil téere boo xam du alxuraan nga di ko jaawale ak kaamil xam nga ni yaa ngi bëgg a jaxase affaire yi nag loolu mooy suñu problème yàlla ba alhaakumu takaasur yéen da ngeen a dem ba da ngeen a jaxasoo fi nekk nii seen xel yi dafay nekkatul wutum alal dafa dem ba dafa leen a jaxase loo am bu weeru dee bu ma defee nangam bu ma defee nangam sama bilan dana faussé yàlla mu ne yooyu nga topp di ko topp di ko topp xataa zurtum maqaami ba xëyri ni kër tam biir biir bàmmeel kalla sawfa taalamun foofu moom boo nangul woon a xamit boo yegsee fii di nga xam maa la ko wax summa kalla sawfa taalamun maa la ko wax kalla law taalamuuna ilmal yaqin mbir mi kay nekkatut déggoon naa ko foogoon naa ko mi ngi nii kay lañ lay wax la tarawunna aljahim summa la tarawunnaha ayna alyaqin summa la tusaluna yawma idin anin naayim xoolal yooyu léeg-léeg nga di ko teewal ci sa dund gi wallaay mbokk yi day def lu rëy ci yow ana diw ñun ndeysaan moom dese décédé na décédé na dafa décédé waaw say sayee kooku moom sayee mat say moom bu xasee faxas loxo yi ni sayee allahu say allahu akbar sayee sayee la salaat parce que sayee wala siyam parce que sayee wala zikr parce que sayee wala jéggalu bàkkaar parce que sayee fi ne sayee sayee moom bu ñu ko waxee mooy jeex na yow addina moom sayee xisaabati rek lem kayit yi ñu lem moom kenn dootu ko lemmerte te loolu fa maaman uutiye ja bu yegsee loolu mat naa xalaat di mbokk yi maa fekk na rëdd rëdd yu xonq yu bari wu ca rëdd yu xonq yi mooy bàkkaar yi gis nga de toujours dafa war a nekk say projet lan laay def ba am ngërëmal yàlla gis nga gis nga ba loolu nekkul jagoog saxaaba ya ba tey mbokk yi mi ngi am nan ngay def ba am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg nga jékki-jékki bu yàgg bàyyi ba xaaju guddi nga jóg mu wóor la ni fii moom ngis taloo parce que amul koy ngis tal te boo yeewoo boo ko waxul kenn du ko xam ah waaw yow de yaa ngi ci yoon yow léeg-léeg nga jékki-jékki jàng alquran sa xol fudd léeg-léeg nga jooy léeg-léeg nga nga tadabbur waaw waaw foofu moom boo ko nettaliwoon nit ñi duñu duñ ko xam léeg-léeg nit ñaa ngi toog jàpp ne yow ñu nga ca far yow yaa ngi zikr kenn xamut lu xew fekk yow waa ma man xaafu maqaama rabbihi moo la tiital benn bàkkaar ni dareet ci sa kanam mu wóor la ni tey kenn terewulaa mooy yàlla nga teg ci sa bët lu ne ci inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin adim nga sol ay veer veer yi mooy aaya jooju yàlla nan inni axaafu in asaytu rabbi man de maa ngi tiit su ma mooy yàlla adaba yawmin adim mbugal méttee may xaar nga dem ba yóotu di waaj a sàcc yëfi jàmbur mu wóor la ni fii boo jëlee kenn du ko gis nga ne alam ya alam bi anna allaha yara ah da ngaa fàtte ni yàlla mi ngi lay gis nga ne ko teg alam yaalam bi anna allaha yara alam yaalam xanaa xamuñ ni bi anna allaha yara yàlla mi ngi koy gis gis nga yooyu aaya nga di ko teewlu sa xel gis nga defaru gi fii dong la bu la ci kenn ndax saxaaba yi am nañ lu kenn dul amati ba taay waaye nag faw ñu roy leen parce que ki leen kin nañ leen roy xam na ni mën nañ leen roy dul bi jaa dayin am ngërëmal yàlla daf ko yitteeloon lool moo tax guddeeg ba cëcc la doon daw benn bis mu génn ci xaswatu tabuuk te ma adrakum ma tabuuk mbokk yi xam ngeen tabuuk yaakaar naa ni yéen a ngi fàttali ko tabu su fekkee lekku leen bopp jën bopp ba ba ba ba xel yi naqari ci jamonoy cooroon nga xam ni bu doon am mbay la dañ naan mbay mi mi ngi toll ci focc ak a palpal te luñ mën a lekk amagu ca nga wëgg xu- xool sàq ya fekk la fa nekkoon ma ngay jeex ñu toll ci digg jafeñ-jafeñ naaj wi tàng jër jër jër ba benn saxaaba nee na soo génnee ci sa néeg nga taxaw ci naaj wi tuuti da nga yaakaar ne sa yuru gi day bax ndax naaj wi ni mu tàngee yonente bi ni préparé leen dañuy dem tabu tombeek atum juróom-ñeent ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam affaire ba ñàkk ñàkk ñàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni borom alal yi yéen laay waxal kan mooy préparé soldat si yàlla waajalal ko ajana Ousmane mu ni waxal ñëpp ku ne amul fas ma jox ko fas ko amul jaas ma jox ko jaas allahu akbar saaxibu jaysil osra keroog jooja ca la abu xaytamata tardé woon ah xam nga rek affaire caaxaan yooyu seytaane man la tuuti muy taxawaalu ba yonent bi raw ko mu génn ñëw naaj waa ngi tàng mu dugg si fekk ñaari soxnaam ñu ngi ci ron xayma ji kenn ki daal di ko yëkkati legatu soow jox ko bi mu guuxee benn guuxee xel mi dem ci yonent bi rek mu këpp soow mi mel ni ku tiit ñi naan lan la lan la mu génn rek waxuñu kenn war aw fasam départ ba ko yonent bi seen ni kun aba xaytamata insha allah kee ma seen muy rëpp tëdd poussière ba la ñuy seen waaye xam naa abu xaytama la loolu moom yàlla moo ko xamal keroog la abu dar war gëréemam di ko dawal di ko dawal di ko dawal ba gileem gi ŋaang xam ngeen gileem mbokk yi gileem du fas de gileem daf la te gileem li man fas mënu ko di est ce que xam ngeen loolu gileem li man fas mënu ko te xoolal fas ni mu amee doole tànn ma nag tànn ma xaar fas laa tàmm parce que fas daa am doole ma ni gileem li man fas mënu ko abu dar dafa war gileem gi di ko dawal ba gileem gi ŋaang manta daw abu dar bàyyi fa gëléem nga jël bagage yi yenn ko di dox ak moom ca la yonent bi séenoon ko ni ko ah yow de kee di séen di xam naa ni poussière ba la ñuy séen muy ñëw waaye abu dar lay doon kii moom buy ñëw day wéet buy dee moom kese mooy nekk nam ko waxee na la amee sallallahu alayhi wa sallam keroog lañ dem ba amuñu lu ñu naan ñuy rey ay gëléem ci biiru gëléem am na benn mbuus bu fa nekk boo xamante ni day def ndox ndox mu subhanallah loo xalaat ci métti rek am na keroog ca la kaab ibni malik tardé woon gis nga tabuk xeex bu marqué la parce que yi ci xew ci ay xew-xew dafa bari tabuk jooja waa ji ca la bokkoon mu dul bijaadayn dul bijaadayn daal di dikk ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonente bi ñaanal ma yàlla ma dee tay tay tay tay allahu akbar lii mbokk yi boo koy jàng yow da nga naan ñii yéen nit la nga woon dee ak ni mu méttee sa jabar ji mu wóor la ni fi nga koy bàyyi sa doom yi fi nga koy bàyyi sa alal ji fi nga koy bàyyi te xamoo looy fekk te kenn du la gunge nga jël say engagement wu damay dem ah mbokk yi loolu jar naa xalaat de ñaanal ma yàlla ma dee tay tay tay tay tay parce que la tax xam nañ ni liñ nekkoon wóor na te wóor na leen ni lii moom buñ ci demee xel mi dal na ku xam fa nga jëm di nga ñeme ku xam fa nga jëm xam risque yàlla fay fekk dëgg dëgg dëgg dëgg nga jëlal koy jumtukaay di nga ñeme mu ne yonent bi ñaanal ma am shahada yonent bi jël ñaari loxoom yi dóor ko ci ñaari mag yi nii xam nga moom ku ndeysaan da doon attiré gars yi di kaf ak ñoom kenn ku nekk mu lay marqué yonent bi ñëw ba fiite ko ginnaaw daal di teg loxo yi nii ci mag bi ni ko maa ngi ñaan yàlla yal na yàlla araamal sa deret ci yéefar yi mu ni ko waxuma loolu waxuma loolu allahu akbar allahu akbar allahu akbar yal na yàlla araamal sa deret ci yéefar yi yéefar yi yal na seen sa deret araam ci ñoom mu ni ko waxuma loolu de ñaanal ma li ma la wax laa wax shahada la mu ni ko dul bi jaaday na xanaa xamoo ni fii nga ne ci xare bi même bu la fi fas war ngeen toog nga dee da ngaa shahid même boo jékki-jékki ne nii nii dee ne te jawuñ la jaasi da ngaa shahid même boo fakkastaloo nga daanu da ngaa shahid limal ko ay lim yoo xamante ni lu mu ko ci dal ci xara bi rek dafa shahid mu ne ko xanaa xamoo loolu mu ne ko waaw xanaa loolu kay waaye man dee tay tay tay tay laa bëgg nam ko waxee noonu la amee mu dugg ci xara bi def ci ay jaroo lu rëy rëy rëy ba ndeysaan sunu borom daal di koy natt mu daal di faatu foofu ci tabu bi mu faatoo Abdullah ibn Mas'ud déglu leen ko ibn Mas'ud nee na dañoo toog ba timis jot ñuy defar néew yi di leen suul nee na yonent bi ni kaay leen ñu jóg ànd ak yonent bi mu ni fii jaw fi lay ci digg guddi gi parce que boobu amul guddi na amul 10 heures amul minuit parce que jamono jooju xare la xare la fi nekk ni boo defut loolu bu subaa layen da lay occupé xoolal ki yendoo xare ba ngoon jot mbokk yi mu mel ni ku yendoo woor sama ndogu lekk su ma pee naa téye la tëdd ak maanaam boo dee seetlu wallahi gis nga li waa wax na wax nañ waxtaan dund salaf ngir gàcce daal dañuy jàpp xoolal yi ngay xalaat fekk am na koo xamante ni yow cëm la lay wax cëm bu la gisoon cëm la lay wax maanaam ñun yi nga jàpp ne yooyu mooy ak ngóor ak njàmbaarte am na ci saxaaba yi koo xam bu la gisoon cim la lay wax xare ba ngoon jot seen programme mooy nan la ñuy suulee néew yi parce que bu ñu ko defut bu ñu xëyee suba ci xare bi la ñuy delluwaat yonente bi ne kaay leen régler lépp ci guddi gi saxaaba yi jóg topp benn saxaaba daal di jabal sawara daal di ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ma gis jékki-jékki seen abubakar ni tëll omar ni tëll nee na ñu daal di ñëw ba agsi ci zul bi jaa day nee na ndeysaan ma gis abubakar ak omar ñoom daal di koy gasal pax ba pare yonente bi daal indi leen ma seen mbokk mi jege si leen seen mbokk mi ñu jege si ko allahu akbar yonent bi daal di koy tiim ni allahuma yow yàlla kii tey ci ngoon man mii sa jaam bi di muhammad gërëm naa ko kon yàlla nag ma ko gërëmal abdullah ibn masud daa mujj mu ni yaa layta nii kuntu saaxiba hadihi alxufra man aka neexoon tey fekk man maa dee man lii laa bëggoon ma dee tey maanaam dafa da doon ndëbeen moom mooy nekk néew bi effectivement lan ngay wut boo fi dundaatoon junni ak ci après yàlla gërëm la yonent bi gërëm la loolu mooy loo fi def mu ni yaa layta nii kuntu saaxiba hadihi alxufra ها من اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه يلا كي تيتي نغون من محمد غرمناكو غرم المكو والله دا منكو غرم دا منكو غرم نخ يالا مونيكو ولا سوف يعطيك ربك فترضى دينا لا جوخ بس خول سيت كون يي مبوك يي مو لاي وني مانام نيوم كي سين جيمي بوب lii moo nekkoon seen objectif mooy am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala xam ne àddina li fi nekk lépp day jeex kenn ku ci nekk nag mu yëg ni la nga xamante nii moom mooy moom la war a dabu ji mooy ngërëmal suñu borom taaxi kaw yi fa lañ koy bàyyi parce que yu ko gën a kaw fa nekk alal ji fi nga koy bàyyi parce que looy doyee alal foofu jongama yi fi nga koy bàyyi parce que fa la jongama ya gën a taaroo ah mboolem lu lu lu dox sa diggante ak sa borom rek wallahi yàlla da la ciy jox ba nga doyal yàlla daf la ciy jox ba nga doyal defe naa yéen a ngi fàttaliku ci xutba jëli passé waa jooju ñu doon nettali ak géntam gu kéemaane googu ci suñu borom nan doon terale waa alquran lii moo nekkoon seen i mbébét yàlla teral la gërëm la kontaan ci yow jàngal alquran yàlla ni la jàngal alquran ngay jàng ba àgg ci barabu sujjóot di sujjóot mun la déedéet sujjóot jeexal damaa bëggoon nga jàng rek lu même loolu moo war a nekk say réew nga di ko xalaat nooy def ba am gërëmal suñu borom subhanahu wa taala saa booy julli bokk mi teewlul loolu saa booy woor teewlul loolu saa boo wéetee teewlul loolu wa amma man xaafa maqaama rabbi tiit di xalaat bis bi nga war a dajeeg sa borom wa naha nafsa ani lhawa bànneex yi nga xañ ko sa bakkan fa inna aljannata hiya almawa yàlla mu ni moom duma la fayee lu du tàbbal ajana yàlla na suñu borom defal loolu kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moo am solo lool benn borom xam-xam bu mag day wax ni kenn ci borom xam-xam yi nee na maa alimtu anna ahadan sami'a bil jannati wan naara ta'ti alayhi sa'atan la yuti'u allaha fiha bi dhikrin aw salat mu ni koo xam ne dégg na ajana dégg sawara xam benn bu ca nekk la muy teg benn waxtu wërta ak si lu dul dañ ci def ak jaamu yàlla wala jàngal xor wala leneen benn waayu ni ko waaw inni ukthiru buka man moom damay bari lu may jooyal suñu borom mu ne ko innaka tadhak wa anta muqirun bi khati'atik khayrun min an tabki wa anta mudall mudallil bi amalik mu ne gis nga ngay ngay reetaan fekk yaa ngi def benn bàkkaar moo gën mukk ngay jooy te fekk yaa ngi wóolu say jëf say jaamu yàlla wóolu maanaam naw sa bopp subhanallah ci li nga xamante ni mooy gaaf yi nga xam dafay daa gaar doomu aadama kon yii mbokk yi jàngat ko mooy la suñu borom doon wax inna fi qasasihim la ibra inna fi qasasihim la ibra inna fi qasasihim la ibra yàlla mu ni ñii seen nettali nga di ko nettali ak waaru mi ngi ci lan ngay layee aw ma temps allahu akbar mbokk mi amoo temps wax nga dëgg saxaaba ya ñoom ñoo amoon temps ñoom yow moom amoo temps sama classe bi yépp koo ci wax mu ni aw ma temps waaw koo ci wax ci ñun rek mu ni aw ma temps waaw amuñu temps de waaw wax nañ dëgg amuñu temps parce que saxaaba yi ñoom ñoo amoon temps taab yoo xam ñun moom amuñu temps koo ci waxal rek mu ne xam nga charge yu diis yi allahu akbar benn waaye dafa ko benn wax bu am solo mu ne ñun da ngay gis koo xamante ni dafay naqari dërët gaaw a énervé wu gaaw a gaaw a mer gaaw a wax lu bon benn ñaar ñett mu wax lu bon ngir ay charge am dafa diis mu ne kan moo gën a diis ay charge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa xeet wi yépp li ñu chargé wu boo ko détaché woon nga dajalewaat ko benn place jox ko yonent bi yonent bi li mu yenu moo ko yëpp te keroog lu gën a neex dara lu ko waral parce que da nga dul zikr da nga dul dimbali ko yàlla ndax zikr mooy wo yen bi lay woyofal beneen bi ci des mooy jàng dund saxaaba yi xam diw nañ la tuddoon diw fan la faatoo diw nangam loolu am na solo lool parce que dama koy def ndax loolu mooy nafar bi waaye la ca gën a am solo mooy lañ ca jëfe loolu mooy la ca gën a am solo nu ngi ñaan suñu borom yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ba dimbale ñu ba lii nga xamante ni dañ koy dégg mu bañ a nekk lu ñuy dégg rek daal di koy sànni waaye mu nekk lu ñuy jëfe danaa laaj ñetti laaj bi laaj bu ci nekk danaa ci teg ab neexal bu soobee yàlla ci xayat saxaaba yi laa koy laaj ku ko tontu ma neexal ko manees na kaa bañ a tontoo fii buñ paree ku ko tontu andil ma ko laaj bu nekk teg naa ci juróomi téeméer insha allah laaj bu nekk benn bu nekk teg naa ci juróomi téeméer lépp ngir tas jiya nit ñi ñu góorgóorluwaat juróom ñaari saxaaba yoo xamante ni kenn ku ci nekk ci xare nga faatoo ci xare nga faatoo bu ma kenn tuddal sul bi jaa day dina ko ndax tudd naa koo pare juróom ñaari saxaaba yoo xam ne ku nekk ci xare nga faatoo bul ñëw ni ma diw nag yem fa nag koo wax nag na nga fexe xam fan la faatoo nag ndax juróomi téeméer ci jamono ji nag yombut boobu leer na ma jàll ci beneen boobu moom xam naa xam naa jafe deuxième bi gën a yomb deuxième mooy bañ dalee def xayaat saxaaba léegi mi ngi bëgg a yàgg juróom-ñaari saxaaba yoo xam ne defaguma seen dund boobu moom yomb na moom boobu moom moom yomb defaguma bu ma kenn wax ku ma def ba pare na xayaat saxaaba xam ngeen dars baa ngi bëgg a am naa nga mi at ñaataat dars bi am na ñaataat ah gone yi gone yu màgg yi dars bi am na ñaataat huit mbaa sept sept moom wóor na am na ko ndax mat na huitam déet dañuy sikki saak xam ngeen loolu yàgg na ah huit ans 2000 2007 2006 2007 diggante bu daal diggante bi dama jàppatul waaye sorentewul 8 wala 7 xam nga loolu bari na léegi nag juróom-ñaari saxaaba yoo xam ne ba léegi defaguma seen dund ñooñu laa bëgg ñu andil ma leen ndax ma mën a def seen dund boobu moom yomb na loolu moom c'est facile loolu yomb na loolu moom boobu am na juróomi téeméer ñaari yooyu góor ñee ko moom bi ci des jigéen ñee ko moom ñetti saxaaba yu jigéen ñoom ñoo gën a yomb la ñoom amuñ juróom-ñaar amuñ juróom-ñett amul juróom ñetti saxaaba yu jigéen yoo xam ni mas nanoo ànd ak yonent bi xeex ba def fa jaloore ak lu mu doon baax na jaloore bu ñu def baax na bu dee dañoo jëlu xeer sànni ko bi yéefar sax baax na ñetti saxaaba yu jigéen loolu yomb da xam nga jigéen ñoom dañoo ñàkk doole moo tax kenn du leen yen paan si wala ñu leen di yen ñetti saxaaba yu jigéen yoo xam ni kenn ku ne mas naa ànd ak yonent bi dem ci xare xare ba mu dem ban la ak lan la fa def bu dee ku mas a caw jaasi la wax ma ko bu dee ku mas a sànni xeer wax ma la ko ah bu see commencé korkoñ ab yéefarit nga wax ko laaj yi bu soobee yàlla mooy laaj yi nga xam dafa jëm ci wàllu taarix ci wàllu jëfe nag bis dina ñëw danaa laaj mas naa fee wax nangam nangam jooju ku ko mas a jëfe yàlla sunu borom defal ñu tawfiq ak taysir wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain